سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak waa këram muy sunu yenentu muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla bu mu deñ di fa moom ak njabootam ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddu nuyoo muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmaandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboole mi mbindeefam mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen beneen yoon ci sunu jotaay bii ñuy amal waaye la ko dañuy ziyaar di nemmeeku di jaajëfal sunu xabiba yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci jotaay bi di ñaan borom bi subhaanahu wa mu barkeel seeni juhuut te tàbbal ko ci miisaanul xasanaat yi mbokk yi alhamdulillah tey ñu ñëwaat ak yéen ci sunu beneen jotaayu waxtaan waaye sunu waxtaanu tey day dellu ci yan melokaan moom mooy melokaanu jigéenu jullit jigéenu jullit yan melokaan lay melokaanoo moom jigéenu jullit wala moom jigéenu jullit ci yan melokaan lañu koy xàmmeewee yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax mu ne ad dunya waaye wa xayru mataaci dunya almaratu saaliha mu ne àddina day bagage la waaye bagaas bi gën baax ci bagaas yi moom mooy jigéen bu baax kon tey dañuy waxtaane jigéenu jullit bu baax yan melokaan lay melo waaye yan màndarga itam lañu koy xàmmee moom jigéenu jullit moom jigéenu jullit naka lañ koy ràññetle di wax ne yow sama uxti fillah yow mi nga xam ne baax daf laa ñor te itteel la lool yow mi nga xam ne yaa doon sàkkoo xam yan màndarga wala yan jukko mooy jukkay jigéenu jullit bu baax man ak yow yépp maa ngi lay woo ñu defub jàngat lépp loo xamante ne dañ koo dëppale nga yëg ne ah man mii kat ci waxtaan bii ndekete jukka jii day amoon naa ko jukka ju baax la ma gën kaa téye ci jànge ci ne jigéenu jullit kat nii la war a mel waaye jigéenu jullit day nii la war a taxawee lépp loo xam ne lu ma uute ak moom la ma yëg ne ah lii kay dama koo manqué te jigéenu jullit daf koo war a am ma daw gaaw pour doon koo xamante ne jukko jooju ma manqué dama koy daal di sàkku ngir ma mën koo am la ca njëkk ci loo xam ne dinañ ko xàmmee jigéenu jullit mooy ki nga xam ne arafat awaamira rabbiha wa salakat maslaka taatiha dafa xam li nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko ko digal mu soobu ci yoonu def ko moom jigéenu jullit dafay xam li ko borom bi subhaanahu wa taala digal mu sóobu ci yoonu def ko kon dafa bokk ci moom jigéenu jullit màndarga yi nga xam ne dañ ko koy xàmmeewee moom mooy mu tënku ci li nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koo digal kon loolu la ca jiitu moom mooy kon dina jàng diineem parce que ki nga xam ne dafa bëgg a ràññee dafa bëgg a xàmmee li ko borom bi subhaanahu wa taala digal mu tënku ca kooku il faut mu jàng jàng boobu moo koy oriente moo xam lii la ma borom bi subhaanahu wa taala digal waaye lii bu ma ko defee kat ab tereem la su boobaa damay uute ak moom kon di wax ne màndarga ba jiitu ba ñuy xàmmee jigéenu jullit day doon koo xam ne day nangul boroomam day tënku ci ab ndigalam du uuteeg boroomam subhaanahu wa màndarga boobu moom mooy màndarga gi ñuy njëkk a xàmmeewee jigéenu jullit dafay doon koo xam ne day bëgg yàlla waaye day bëgg ab yenantaam bëgg boobu nag ginnaaw bëgg bi ba mu nekkee ci xol bi jëf yi ñoo koy feeñal lan mooy jëf yi mooy kooku dafay tënku ci ak ndigalu boromam subhaanahu du uute mukk ak ndigalam moom jullit bi nga xam ne moom mooy jullit bu jigéen ginnaaw ba mu tënkoo itam ci ay ndigalam ñaareeli tomb bi moom mooy wa arafat nawaahihi wa salakat maslaka ijtinaabiha mu doon koo xam ne day xam lan la ko borom bi subhaanahu wa taala tere mu soobu ci yoonu soli ko du ko jege du ko laal moom jigéenu jullit kon ñaari màndarga yi moom mooy màndarga yi jiitu ci jigéenu jullit ci ay melokaanam waaye ci màndarga yi nga xam ne dañ ko koy xàmmee moom jigéenu jullit ay ca maak yow yépp ñu laaj sunu bopp ci ñaari tomb yi jigéenu jullit moom mooy ki nga xam ne dafa tënku ci ay ndiglewu boroomam waaye daw ay tereem léegi ma laaj la yow mi nga xam ne yaa tudd Xadiija wala nga tudd Zeynab wala Fatima wala Maryam ñaari tomb yi jiitu di màndargay jigéenu jullit yow fan nga ci toll fan nga ci toll ndax day doy rekk nga ne man jullit laa wala man turu jullit laa yor wala man dama judd ci ab njullit ne sama yaay jullit la sama papa jullit la maa ngi tudd Fatima wala maa ngi tudd Khadija ndax loolu dina doy ci ab njullite déedéet waaye damay laaj fan nga tollu ci sa digle boroom subhaanahu wa taala fan nga ci toll mbaa yaa ngi julli mbaa yaa ngi woor mbaa yaa ngi muuru yow jigéenu jullit mbaa yaa ngi laabal sab yaram mbaa yaa ngi doon ku fegu mbaa yaa ngi daw lépp loo xam ne ay caaxaan la lépp lu la borom bi subhaanahu wa tere ndekete danga ko war a daw mbaa yaa ngi tënku ci ab ndigalam mbaa laaloo xeesal fenn mbaa laaloo mees mbaa watoo say yéen mbaa nekkoo koo xam ne dangay futteeku di sànni mboolee góoru jàmbur tey doon ñoo xam ne dañuy bànneexu ci gis sa yaram mbaa mbaa mbaa yu bëree bëree bëree bëri yow miy woote woo ab jullit bokk na ci màndarga yi ñuy xàmmee ab jullit nga tënku ci li nga xam ne moom la la borom bi subhaanahu wa taala digal waaye sori daw lépp loo xam ne moom mooy ay tareem kon yow miy woote woo ab jullit sama question mi ngi jëm ci yow fan nga toll ci sa ndigle borom fan nga toll ci ay tereem laaj baa ngi noonu yow sama mbokk jullit yaa ma koy mën a tontu. kon bu ko defee sama question mi ngi noonu yow yaa ma ciy tontu ñu dem ci ñetteelu tomb bi ba tey ñu ngi ci melokaanu jigéenu jullit moom jigéenu jullit naka lañ koy xàmmeewee ñu wax ne niñ koy xàmmeewee la ca jiitu day nangul boroomam tënku ci ay ndigalam sori lépp luy ay tereem ban moo ci topp kon moom jigéenu jullit buñ koy xàmmeewee moom mooy wa arafat rasulaha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaa bihi min rabbihi wa ataathu day doon koo xam ne day xam yenent bi sallallahu alayhi wa lan la indi jëlee ko ci boroomam mu topp ko ci loolu moom jigéenu jullit mu xam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaam xam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaleem ndigalam mu tënku ci loolu ñaari mbir la yoo xam ne dañoo kolewoo benn mënu cee dem bàyyi moroomam jullit du ne jullit du wax amul sañ-sañ ne man damay tënku rek ci ay ndigalu borom bi subhaanahu wa taala waaye sunna yenente bi moom sallallahu alayhi wa sallam duma ko taxawee déedéet amul sañ-sañ boobu lan moo tax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ne yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla topp leen yàlla ngeen topp ab tam kon ndekate boo tënkoo ci digle yàlla da ngay tënku ci digle yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te digle yenent bi sallallahu alayhi wa moom mooy li nga xamante ne jàngale na ko woote na ci kon benn mënta dem bàyyi ab moroomam benn bi la yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu yor indi ko jëmee ko ci ñun borom bi subhanahu wa moom moo ko jox kon yow jullit naka lañ lay xàmmeewee da ngay tënku ci digle yàlla bàyyi ay tereem waaye tënku ci li nga xam ne mooy jàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ay ndigleem waaye bañ a uuteeg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga doon koo xam ne doo mooy ndigalam yow jigéenu jullit di wax ne maazira di wax ne yow jigéenu jullit léegi yii nii nan nga koy xàmmeewee mënoo koo xàmmee lu dul dangaa jàng sa diini mënoo koo xàmmee lu dul dangaa jàng sa diine nañu moytu te moytul sunu bopp bu baax ñu doon ñoo xam ne dañuy ommat ñu gumba ci sunuy diine du ñu gis dara ñun daal lu ñu gis dañu koo gisloo lu ñu dégg dañu koo déggloo moo tax duñu deñ di def tojaange ci sunu diine duñu deñ di def tojaange ci sunu diine ndax la tànk yow jullit bi yaa ngi doon koo xam ne la ca dañ la koy wax la ca xaraamit kazalika mën nañ laa mat ci waxtu bu nekk ci nax la ci sa diine loolu moom moo tax dangay ngay gis jigéenu jullit boo xam ne danga naan ko dangaa war a muuru mu ne ah muuru ah <laughs> man de sama sëriñ waa këram defuñu ko wala sama sëriñ ay soxnaam defuñu ko waa dama lay laaj ndax sëriñ ba moom borom bi subhaanahu wa taala da koo yónni ci yow mbaa mu yóbbante ko déedéet li xaraam leer na li dagan leer na kan la yàlla yónni ci ñun mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi nag ñoo leen fi taxawal ci jottali li nga xamante ni moom mooy seeni mission waaye dama ne ndax tey boo amee sëriñ boo xamante ni tënkuwul ca la yàlla digle mbaa mu bàyyi ay tereem la muy def danga ko cay roy hmm, bu ëllëgee <laughs> bu ëllëgee ndax dangay nangu fañ koy tàbbal rek ñu tàbbal la fa boo ko paree rekk baax na kon damay wax ni damay wax ne yow jigéenu jullit góorgóorlul sa bopp nga jàng sa diine ba kenn du la diri kenn du la sànk kenn du la oyofalal wala di la nangul loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf la koo tere déedéet waaye kenn du la digal lu uuteeg jàngale yàlla ak yeneen ndax am na yoo xam ne li tax mu oyof ci ñenn ñi mooy ñàkk a jàng xamuñu valeur ñoom li ñuy bàyyi fi mu toll moo tax dañ koo oyofal ñoom dafa dañoo doon ñoo xam ne rek baal leen ma dafa mel ni dañoo takk seen loos yi dara rek di ko diri am fu ñu jokk am fu ñu bokk am fu ñu yaakaar la waa ñooñu di def ak lañ leen woo ci loolu ñoom la ñuy wuyu ndax moom la ñuy jàpp ne baax na lu ñu bàyyi ñu jàpp ne mooy li bon. lu tax jànguñu seen diine bi dañ leen di diri rek dama ne lii du góoru jullit du jigéenu jullit amul kenn koo xam ne war na koo mën a nangu moo tax jullit dafa war a yeewu ci diineem yeewu ci sa diine nag lan moo la koy may mooy nga dem jàng sa diine nga fas yéenee xam. suñ la waxeelu dagan nga xam ne liilu dagan la suñ la waxeelu xaraam nga xam ne lii lu xaraam la waaye yow doo doon koo xam ne mukk dangay sukkandiku ci nit mu lay uutaleeg jàngale yàlla ak jàngale yeneen taam sallallahu alayhi wa sallam nga toog rek yaakaar ne yaa ci nekk moonte boo deewee ak sa bàmmeel damay wax ne morgu bii rek moo gën a jege waaye suñ la fa dencee rek nga nar faa fanaan baa nga fay yendu ña la gën a jege du ñu taxaw du papa du yaay kan moo fay fanaan ak yow du mag ci góor wala ci jigéen bu naan nañ ko wéttali fa maa baalu nag sa bàmmeel yow kañ ngay gis kan ngay gis kon góor ci sa diine góorgóorlul ci sa diine bul foye sa bopp yeewul ci sa diine bul nangu ku la ko foyal bu ko defee incha allah mu mel ni egsi nañ fu ñuy yëkkatee suñu jotaay di jéggalu lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa taala lu ci dëng day dellu ci matadiwu doomu aadama ñu koy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala di leen ko jéggalu Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax ci li ngeen ñuy topp ci jotaay bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fay leen lépp doon a yiw yoo xam ne daf ñu koy nangul moom yaa rab luy juumteeki rëcc rëcc mu jéggal ñu ko du dellu ci kenn lu dul ci ñun muy matadiwu doomu aadama bu ko defee incha allah fii la ñuy yëkkatee sunu jotaay ba subaak jàmm incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu سألت الله سألت الله